bu ma la fekkoon nga am diina ma yokk sa diina su ma la fekkoon nga am diina ma jox la diina su ma la fekkoon nga jubadi ma jubanti la su ma la fekkoon nga nga tayal ma sawar loola su ma la fekkoon nga nga nga ñàkk fayda ma am loola fayda lii mooy tarbiya jikko yi jikko yëpp baax yëpp ma roof la ko rocc jikko yu bon yi loolu kat mooy tarbiya waaye dikki nag dara amul rek firi nag xam nga dañu ko nit ñi dafa yomb waaw waxal firi firi la nga dem rek ma dikk xol fi am loolu du tarbiya rek xam nga loolu dañuy wax